mais ñëw taxaw deugal seen bop xam Ben candidat lañu gëm ben candidat mo prôné la rupture et la réconciliation nationale muy la personne du candidat Amadou Ba li ko firndeel moy ñun légui lañuy tambalé fête suñu victoire bu ngeen gisee jigéen ñi takku ndaw ñi takku suñu papa yëpp ñëw en masse si centre de vote bi wane na ne gagné nañu fi ba paré may ñaan ni ngeen ma teeroo ni takk taxaw wane na Amadou Ba kese la ma leen di ñaan ngeen sécuriser noonu centre de bi sécuriser suñu carte li koy firndeel di ko waral mooy dafa am ñu jóg di bëgg a di di bëgg a wecc kàcc ak i dëgg waaye ki xool li fi président Macky Sall tabax gëm ne Amadou Ba mooy continuité bi waruñu jël ay ndaw yi nga xamante ne amuñu maturité bugg leen dénk Sénégal dama ne. élection présidentielle c'est quelque chose de très sérieux du affaire nawetaan du affaire ASC du affaire gox mais affaire réew la ku war incarner réew il faut dafa war a set ku war incarner réew da nga war faut am xam-xam ku war a réew mi da nga am vision et la vision éclairée de ce pays là on doit le confier au candidat Amadouba. C'est ce que nous gëm loolu la ñuy liggéey te c'est si que lañ koy def. ñu ngi ñaan yàlla nag dugg ci élection yi bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin après résultat yi incha allah rabi dinaa woo une conférence de presse pour faire une déclaration importante à la presse si kàttan yàlla suñu borom. alors président ah, ah, ah. ñu bëgg la laaj exact centre bi ndax euh, constaté woo benn désagrément au niveau ci euh, bulletin de vote yi et tout ce qui yàlla bu baax li tax ma sant yàlla mooy maturité bi nga xamante ne électeurs yi moom la ñu mun naa ne Amadou Ba gagné na ba pare. parce que suñu bulletin yi ndaw yaa koy jël jigen yaa koy jël mak yaa koy jël parce que xam nañ ne luy jam rew mi luy continuer di tabax Sénégal luy continuer pour boole mak ñek ndaw ñek ñep jubale askan bi kenn na am muy la personne de Amadou Ba la preuve tourner mi woné nañ ko campagne bi mu def woné nako ko fu mu dem askan baangi mobilisé wu ñew féddali ko sen cofeel ak bëgg gi nga xamante mom la bëgg Sénégal tey bi ma duggee ma bureau de vote muy numéro 2 dama sant yàlla suñu borom parce que suñu bulletin jeex na ba ñu ngi koy jëlaat centre bi centre bi jeex na ba ñu ngi koy jëlaat lii wane na Benno Bokk Yaakaar gagné na ci élection yi Thiès ba pare. mën na ne Massaly gagné na centre am. mën naa ne gagné naa ba pare li koy firndeel mooy woo naa leen à vingt pour une conférence de presse incha allah rabi.